moom Macky. Idrissa da doon wax président Macky moo Macky. sama Macky Sall la doon sama Macky Sall la doon wax. bi mu nekkee premier ministre. bi mu nekkee premier ministre. bi mu koy def. bi mu koy def. ministre d' état. ministre de l' intérieur. ministre de l' intérieur. porte parole du gouvernement. porte parole am na ñu nekk tey ci gouvernement Macky sal am na ñu nekk tey ci gouvernement bii. d' accord ñu woon. d' accord ñu woon. Idrissa Seck da doon wax c' est mon Macky laissez moi mon Macky. président da doon wax naan laissez Macky c' est mon Macky. absolument. loolu mu ngi koy dëggal. ñu bëri bañoon. nee na ñu bëri bañoon. tey nag séparation ñu ngi jege tout ça. mais ñun dañoo fekke loolu lépp. na moom noppi xam li ñu xam jàpp suñu jàmm. xam li ñu xam jàpp suñu jàmm. ndax ñun lu ñu mënti am. ndax lu ñu mën a am. suñu ngor a ñu gënal. suñu ngor moo ñu ko gënal. Idrissa Seck la ñu àndaloon. Idrissa Seck la ñu àndaloon. fekk Ablaye Wade ne France. fekk Ablaye Wade nekk France. ñu ne étudiant. ñu nekk ay étudiant. man li ma ci dugal. mais li ko ci dugal. maa doon président étudiant Thiès. mooy président étudiant Thiès maa doon président étudiant Thiès. moo nekkoon président étudiant Thiès nekk fac droit. nekk fak droit. nekkoon président bi aussi. nekkoon président bi aussi. amical bi amical bi. may dem ci Idriss Seck. muy dem ci président Idriss Seck. di ko wax problème étudiants yi. di ko wax problème étudiants yi mu ñuy jàppale. mu ñuy jàppale man yàlla suturaal loon na ma. yàlla suturaal ko. amoon naa bourse. na bourse am naa néeg. am na néeg soxlawu woon dara. soxlawu woon dara sama papa dafa noonu vingt mille yi mu doon am ak quinze mille sama yaay di jaay ci marché bii. nee na vingt mille su ma ñëwee mu dajale ko jox jaay ci marché bii bu ñëwee mu dajale ko jox ko. sama papa su jaayee retraité la su fayee ko. dajale jox ma. nee na papam bi ngeen jaal si bu fayee ko jox ko. sama nijaay Ablaye Ndione di liggéey chemin de fer. nijaayam Ablaye di liggéey semaine de fer. nekk gaaru Dakar. di nekk gaaru Dakar. su ma am soxlaa. dem gaar ba. bu soxlaa dem gaar ba. tu jógee ci train bi jóge Mali. bu jógee Mali lu ma soxla mu jox ma. lu mu soxla mu jox ko. ñoom ñooñu laay sant ñooñu laay gërëm ñooñu lay sant ñoom lay gërëm. ñoo ñoo financé sama njàng. nee na ñooñu ñoo taxaw ci njàngam. moo tax man lu ma am. nee na lu mu am ñooñu tax politique li ma ci dugal. nee na politique li ma ci dugal. damaa nekk président étudiant Thiès. dafa nekk président étudiant Thiès. di seeti Idrissa Seck. seeti Idrissa Seck. mu nekkoon ministre d'état ministre de l' ministre de de l' industrie. nee na mu nekkoon ministre de l' industrie. ci temps wu Abdou Diouf. ci temps wu président Abdou Diouf. mu ñuy jàppale. mu ñuy jàppale. bi bi Ousmane Ngom quitté. bi Ousmane Ngom quitté. PDS. PDS dem PS. dem PS Idrissa wéet fa Idrissa wéet fa benn bis Ablaye di war a ñëw benn bis président Wade di ñëw jóge France jóge France ma woo Idrissa Seck téléphone mu woo téléphone mu ne ma yow dama laa jàpp comme sama rak mu ne daf ko jàpp comme rakkam dama bëgg dafa bëgg nga ñëw jàppale ma ci politique nga ñëw jàppale ma ci politique je te considère comme mon jeune frère nee na daf dama la jàppee comme sama rak moo tax ñoom Salif Dieng ñi ñu yar comme ñoom grand Salif Dieng ñi ko yar fii ñun terrain bi Salif moo doon doon ne fii. si ginnaaw terrain bii président Salif nii moo nekkoon suñu. bu ñu ko gisee muy politique. dañuy jaaxle. dañuy jaaxle ndax man damaa tooyoon. nee na dafa xawoon na noppi. damaa tooy. dafa noppi woon. damaa tooyoon sama yaay ni si gis nga ci mango gii la doon jaayee. nee woon. ci mango gii la doon jaayee. ci mango gii la yaayam mais nag mango gi. mango gi comme sama maam yi moom ñoom moomoon fii yëpp. xam nga ci dara comme moo moomoon maamu kër Daago yi. sama yaay day toog rek yaayam day toog dañ koy indil kii na mu tudd addiya mu mel dañ koy indil addiya rek di barkeelu waa marché bi yëpp waa marché bi mango géeg lépp lu fa kii rek sama yaay lañ koy jox nee na mango géeg yëpp lu ci génn rek yaayam dañ ko yaay doomu séeréer sama yaay lañ koy jox nee na kon su ma jàngee ñëw rek sama wetu yaay laay toog bu jàngee ñëw toog yaayam di ko jàppale di ko jàppale di ko jaayal di ko jaayal ko lépp laa koy defal lépp la ko doon moo tax man nee na moo tax moom sama sama yaay daf ma ko bon ñu tàllal loxo yi président yaramam moo daw day fàttaliku wajur wi rek loolu defe naa tooyal